Euh, merci de nous suivre sur euh, Sans Limites et sur toutes nos plateformes digitales fidèles internautes di leen ci euh, dalal jàmm di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte nag saa su ne rek di jàkkaarloog yéen ci Sans tey nag ñu am mbégte daal di toog ak ki nga xamante ne moom moo di Khadija Mayokor Diouf nekk nag militante Pastef mais en même temps itam dal di jiite rek kuréelu jigéenu Pastef fi fii ci Géejawaay bokk itam ci administration parti Pastef suma juumul Khadija ñoo ngi lay dalal Sans Limites di la nuyu Ndeye Faye di nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi taxaw di déglu émission bi di leen encourager yéen surtout di leen féliciter parce que vous avez démocratisé l'information comme j'ai l'habitude de le dire parce que avant c'était les télé traditionnelles aujourd'hui euh, c'est la magie du clic et donc euh, fu waaye nekk rek ci Sénégal mais surtout si monde bi si diaspora bi mu ngi leen di seetaan di rafetlu bu baax seen liggéey di yaakaar ni nag lépp lu ñu fi waxtaanee rek njëriñ lay doon ci ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi. jërëjëf euh, Khadija mu mel ni émission bi li ko sabab rek mooy waxtaanee wàllu actualité fii ci réewum Sénégal euh, te mënuñoo wax actualité te waxuñu jamono ji li nga xamante ne nii euh, moom moo ko marqué ñu ngi wax report des élections locales je pense que c'est la troisième fois sax ñu koy reporter au début waxoon nañ ne amuñu consensus ci dialogue national parce que tënkaguñu li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu fichier électoral bi tey ji report boobu noonu lan la lan la wundu euh, selon selon selon vous. c'est évident le président n'est pas en position où euh, il pense qu'il va gagner les élections locales parce que li ngeen ko xamee ma xam ko te xam naa ne internet yi aussi dinañ partager euh, avis boobu ak man malheureusement régime bi nga xam ne tey dañ ko am en place tant que rek yëf yi ndiruwul lu ko favorable rek daf koy téye ngan ko ko def ci lu ko neex d'abord ñu koy ñaawlu di ko dénoncer de la manière la plus forte parce que nag le respect du calendrier électoral dafa war a doon une chose boo xam ne fii Sénégal tollu te ñu naan euh, vitrine la ci démocratie sénégal euh, africaine dañ ko war a dépasser euh, les élections doivent se tenir à terme tey tous les maires yi nga xam ne on les a élus donc yi nga xam ne seen mandat dépassé na depuis deux ans voire même plus sont des maires illégitimes di jël ay décision yoo xam ni pour la population te légitimatuñu loolu ñu ngi koy dénoncer de la manière la plus forte parce que c'est très facile tey euh, nga nga nga nga nga invoquer par exemple le Covid wala nga invoquer euh, le fichier électoral wala ngay trouver des excuses pour tout simplement reporter les élections alors que ñëpp xam nañ ni li wundu euh, reportu élections yi mooy le régime en place a vacillé régime en place bi leer na ko ni ils sont devenus impopulaires ci base bi mais aussi euh, partout où ils avaient des mairies yu nga xam ne xëy na dañ ko gagné woon euh, leer na leen ni la donne à changé donc man pour man la vraie raison bi nga xam ne moo tax ñu reporter élection locale yi euh, c'est pas des raisons techniques c'est plutôt des raisons politiques comme ils ont l'habitude de le de le faire avec les sénégalais lépp li nga xam ne ñoom dañ koy def rek ci politique lañ koy lal may wax rek ni ñaawlu nañ ko te ñuy laajte nag le respect du calendrier électoral soit une question boo xam ne Sénégal ak sénégalais yi dañ koy dépassé ba saa bu élection jotatee rek ñu amal ko ci app bi nga xam ne moom la code bi wax app bi nga xam ne moom la yoon tëral loolu daal mooy li nga xam ne mënoon naa ko wax si si si question boobu le fichier électoral c'est vrai Euh, a prêté beaucoup de de confusion euh, li nga xam ne gis ngeen ko ñu gis ko donc partout au Sénégal euh, le fichier a été manipulé le fichier a été utilisé pour atteindre des objectifs yu nga xam ne c'est caché moom le régime bi utilisé woon si élection présidentielle yi yéen a ma gën a xam des des militants fictifs yi nga xam ne inscrire nañ leen boo demee au Fouta ak li ci jotoon a xew duma ci revenir des départements yoo xam ne nombre de votants yi presque day ëpp ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo soqikoo ci gox ba loolu yëpp voilà. Ah, dañu bind ci non inscrit ah mais justement cette question euh, c'est une question qu'on occulte mais man pour man c'est la question primordiale et la question centrale bi nga xam ne tey dañ ci war a taxaw. quand tu vas dans les pays bi nga xam ne démocratie dañ koy réputé nekk des pays de grande démocratie soo amee 18 ans tu n'as pas besoin d'aller t'inscrire ci ay liste électorale pour mun a voter. ça devient automatique te tey Sénégal dañu war a yegg foofu nga xam ni dès que t'es 18 ans rek mot na nga nekk jouir de tous tes droits donc civique pour mën a voter on t'envoie ta carte d'identité wala ñu éditer ko euh, envoyer la information un SMS ou quelque chose du genre parce que la technologie est la elle doit être utilisée pour que les gens puissent avoir droit si li ñu moom maanaam man bu ma amee dix 18 ans wala sama doom am ko wala sama rakk automatiquement dañ koy imprimer la carte d'identité boo xam ne ci ginnaaw dañ ciy bind centre de vote am ak lieu de vote bi nga xam ne fa la affilié mu bañati nekk ay processus d'inscription ñu am juste des processus yoo xam ne euh, par exemple soo transféré fi nga war a voter da ngay dem réclamer ñu transférer la ko quelque chose du genre mais qu'on soit aujourd'hui en train de nous priver de notre élémentaire bi nga xam ne mooy le droit de vote par des euh, stratagème politique. Ça aussi, le Sénégal doit dépasser ça. Si on si on se veut un grand pays de démocratie. toujours ci euh, wàllu élection locale yi ñu bëggoon a xam parti Pastef ñoom lan la ñu paree pour pour ça parce que je pense que ni euh, nekk loo xamante ni nii c'est anodin. mais non du tout au contraire euh, aujourd'hui dañu gëm ni. dañu gëm ni euh, tout va changer à partir de ces élections locales et que notre parti euh, depuis de depuis deux 2014 bi mu juddoo ne cesse de grandir nag boobu ba léegi nag mën nañ ne élection locale jàllu fii euh, ba ñuy mën a aller chercher suffrage local yi donc ren bu élection yi amee wala dëwën dans tous les pays dans tout le dans tout le pays partout où euh, il se euh, devra, on ira chercher le, le, le, vote des Sénégalais pour avoir des, des, des maires et surtout des mairesses. J'insiste sur le mot parce que euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais surtout pour avoir des jeunes et une, un renouvellement de la classe politique locale. Parce que Taïdi, euh, pendant très longtemps, on a vu les mêmes nits, ñuy toog di diriger te boobu ba léegi dara changé wul alors que ñun dañu gëm ni euh, le changement véritable day commencé si gox gox-goxaat yi dañu gëm ni ñun politique bi nga xam ne moom lañ bëgg euh, def foofu lañ bëgg a jëmale Sénégal euh, les communes et les collectivités locales dafa am pàcc bu mag boo xam ne dañ ko ci war a jouer parce que dañu gëm les territoires dañu gëm ni tout commence à la base dañu gëm ni euh, aujourd'hui chaque citoyen fa mu dëkk dafa war a engagé wu ci deveniru fi mu goxam te loolu euh, lenn mënu ko mandargaal lu dul élection locale donc ces élections locales rentrent en étroite ligne avec notre nouvelle façon de voir la politique avec notre conception même de euh, lan mooy engagement donc engagement avant nga koy def au sommet de l'État il faut d'abord le faire euh, dans fi nga dëkk donc te doomu gox mooy defar gox loolu dañ ko gëm nit ku nekk fi mu soqee ko dafa am benn relation affective en général bu muy am ak gox boobu donc ngi koy préparer préparé bu baax et partout dans tous le Sénégal dans tous les départements dans les 540 et quelques départements euh, euh, communes yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal on va présenter des listes où on ira en coalition avec euh, ñoo xam ne ci gox ba la ñu dëkk ñi nga xam ne dañuy partager euh, notre idéal politique ñi nga xam ne dañuy partager suñu vision ñi nga xam ne dañuy partager suñu gis-gis si gox goxaat yi dinañ dem ak ñoom élection pour aller euh, chercher toutes les mairies et surtout commencer à dérouler notre programme politique au niveau de la base. voilà xëy na rek ñu retenir pour le moment que ni élection locale daal dañ ko annulé à une date euh, sinédiée espère voilà rek à une date euh, sinédiée espérons qu'un jour euh, dinañ ñu jël décision nag daal di koy taxawal bokk na itam ci lu ñuy waxtaanee ci suñu émission tey moom mooy déclaration président Macky Sall 3 avril bi nga xamante ne moom la ñu génn mu nag wax ci yu am solo que rek ni feetu 4 avril <laughs> yaa ngi ree <laughs> mu ni feetu 4 avril en tout dédié à la jeunesse bu waxee loolu nag xëy na ma liggéeyu xale yi lay wax ak ak ak besoin en éducation yi emploi financement projet ak soutenir li nga xamante ni moom moo di wàllug entrepreneuriat ndax loolu dal na xel tey boo déggee euh, discours boobu surtout qu'on dit que Euh, dañoo dafa xawoon a sentir frustration euh, jeunes yi moo taxoon ñu gis manifestation yu tar yi nga xamante ne moom la moom moom la ñu mujjee génn ndax loolu euh, ça veut dire que le président Macky Sall a effectivement reçu le message de la jeunesse. C'est une question très pertinente dans la mesure où pa mënuñu occulter li am le 4 avril le 3 avril au soir le avril Le président Macky Sall était à la 2S. Je l'ai écouté. Donc ça veut dire il y a 10 ans de cela. Et je, euh, il a tenu le même discours que celui de tenir le avril encore une fois, avec un retard de dix ans. Euh, ne carrément de faire jeunesse, de faire entrepreneuriat, de faire l'emploi, de au cœur de son réseau, euh, au cœur de, son, de, son, de sa politique. Donc, de me, de me, de ndax tey Sénégal dañ ko bëgg a yoree ci ay promesse ndax dix ans ngay promettre la même chose te réaliser woo ko wala dañu xalaat ni sénégalais yi nga xam ni ñoo fi nekkoon en 2000 nekkuñu fi woon en 2011 déglu déglu le discours bi mu amoon avant muy nekk président mu répéter le même discours bi mu nekkee président parce que quand même il faut reconnaître que le 3 avril 2012 c'est le président Macky Sall qui avait fait son premier discours à la nation mu doon fête indépendance juste après ces élections il avait fait les mêmes promesses donc man amatuma lu may xaar ci discours bi parce que dix ans plus tard c'est les mêmes discours c'est les mêmes promesses c'est les mêmes contenus et les résultats sont là la crise du logement euh, de de de l'emploi la crise du foncier la crise sociale la crise économique la crise du monde rural l'exode rural qui est encore beaucoup plus exacerbé jeunes yi amuñu liggéey te yemul ci jeunes yi Sénégal ñiy liggéey sax ils sont des travailleurs sociaux donc le problème de l'emploi bi nga xam ne et de la jeunesse euh, depuis dix ans encore je j'insiste sur le sur nombre mu ñu koy marteler man dama gëm ni amu ci xam-xam amu ci mën-mën ndax euh, boo bëggee résoudre le problème de l'emploi di utiliser ay stratagèmes wala ay fausses solution pour de vrais problèmes c'est que tu n'as pas encore compris l'essence même du message que les gens ont envoyé euh, bu ma ko déggee mu wax les 65 000 emplois sur la bande verte wala pavage euh, des questions comme ça dama am lu ma naqadi xam nga lu tax ma am lu ma naqari parce que tey il est en train de nous parler de taf yëngal maanaam yuuxu nañ soxla nañ xaaral ma cliquer joxe dara pour noppiloo nit ñi euh, Marianne euh, la question aujourd'hui de l'emploi c'est une question structurelle parce que chômage bi dafa endémique au Sénégal te lenn rek moo ko wundu mooy mauvaise politique bi nga xam ne moom la gouvernement yi fi jaar en bon li ci gën a garaaw mooy bii nag nga xam ne moo fi nekk nga xam ne dafa dem lebi ji ay milliards et des milliards euh, dafa dem endetté sénégalais sur des générations te résoudre problème mu emploi changer wu structuration wu économie Sénégal ba mën a am ay emploi te il ne l'a pas compris donc su may déggee président encore une fois muy wax ay emplois yoo xam ne c'est pas des emplois durables ay ay pavage deux trois mois mu jeex les gens retournent au chômage su ma déggee président il n'a pas parlé des jeunes diplômés yi nga xam ne dañu génn comment on va faire pour les aider su ma déggee président mu wax discours di promettre te dugalu ci li nga xam ne mooy l'agriculture dugalu ci li nga xam ne mooy industrie dugalu ci li nga xam ne mooy l'artisanat dugalu ci li nga xam ne mooy l'encadrement à la base des jeunes par des métiers yoo xam ne c'est des métiers yoo xam ne nit da koy am tout sa vie li nga xam ne moom laa mën mu nekk li nga xam ne maa ko moomal sama bopp te buñ ma ci financer tamit dina am les compétences yi nga xam ne daf may permettre ma ma mën a dérouler le projet ou les les les les programmes fiñ ma ci xaar ma mën ci jouer sama pàcc bu ma déggee un discours te loolu yëpp gisuma ko ci damay ne euh, euh, le j'ai compris là no non non le président ne nous a pas encore compris donc euh, man xaaratuma dara ci régime bi sincèrement lenn rek laay ñaan yàlla euh, fii ak deux trois ans euh, yàlla élection ñu tëgg ko présidentielle mu dem parce que gaw ma ni loo xam ne réussir ko en dix ans en dix ans deux ans et demi yi ko dese mën na changer quelque chose il a raté le coche dès le début parce que il n'a pas compris que l'emploi n'est pas du ressort de l'État l'emploi est du ressort du secteur privé te secteur privé fort national tey suñu patronat malheureusement c'est détenu par qui c'est détenu par les Turcs c'est détenu par les Marocains c'est détenu par les Français c'est détenu par euh, les les les les étrangers en général tey jii boo jëlee les entreprises sénégalaises nous n'avons pas un patronat sénégalais réel fort ñi nga xam ne dañuy investir dans un pays di ñëw li ñuy ut c'est vrai c'est investir mais c'est aussi delloo seen xaalis ut bénéfice ak rentabilité suñu deful ndànk gis nga suñu marché africain bi nga xam ne tey dañ ko am un marché de plus de 460 euh, je crois millions d'habitants dans les années qui viennent muy un vrai marché à consommation gis nga entreprise yooyu nga xam ne tey ñoo ŋànk suñu économie danañ ñu nax jëlaat suñu suñu suñu suñu suñu suñu koom jël suñu ay euh, consommateurs di ñu employé di ñu fay ay salaires yu dérisoire et les problèmes vont rester inchangés donc man j'appelle de tous mes voeux nos présidents et nos dirigeants sénégalais et africains à repenser même le développement de l'Afrique, à repenser notre souveraineté. Parce que tant que ces questions-là, on ne les a pas abordées dans le fond, juste de manière superficielle on n'arrivera pas à résoudre l'épineuse question de l'emploi l'épineuse question de l'emploi des jeunes alors que chaque année le nombre de jeunes augmente la la demande est encore beaucoup plus criante xale yi euh, dañuy gën a compétent suñu investirul les secteurs stratégiques former d'abord les jeunes à des métiers réfléchir l'agriculture pour que mu servir euh, l'industrie réfléchir l'industrie pour que mu nekk quelque chose qui sert aussi l'agriculture, on n'arrivera pas à résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Et malheureusement, malheureusement, malheureusement, euh, le président que nous avons en face de nous euh, n'a pas compris l'essence même du message qu'on lui a envoyé. C'est-à-dire que tey ñun soxlaatuñu ay solution de façade ñun xam nga lu ñu soxla un changement profond, un changement structurel. une réorganisation de notre économie ba nga xam ne ay entreprise ak ay micro entreprise ay entreprise yu mag ay ay ay champions nationaux ñooy tenir économie sénégalaise ñu nga xam ne tey dinañ mën a produire des euh, permettre ñu am ay emplois durables des emplois yu nga xam ne nit da ciy liggéey di tedd waxuñu ay emplois yoo xam ne da nga ciy nekk di survivre donc tey euh, malheureusement encore le discours du président il est encore passé à côté c'est comme si c'était un président qui donc euh, qui comprend neuf ans plus tard, euh, malheureusement pour lui. Euh, je pense qu'il a vraiment un très sérieux problème avec les Sénégalais, mais surtout avec les jeunes. donc euh, du ay xaalis ay 450 milliards ou ay 350 milliards yu ñuy jël di ko au secteur de l'emploi mooy résoudre le problème ce que nous nous demandons mais ce que nous attendons surtout c'est qu'il y ait un changement profond dans la façon où on gère ce pays et tant que loolu amul du ñu mën a résoudre le problème de l'emploi des jeunes. yaakaar naa ni am na solo toujours rek ci euh, la question de euh, l'emploi des jeunes yaakaar naa ni préconiser nga itam ay euh, solution au-delà du fait que ni rek dañoo war a itam créer des conditions d'emploi pour jeunes yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk sur le marché ñu bëggoon itam dugg ak yow ci benn affaire boo xamante ne ni xëy na ci lañ la ràññee Khadija. Euh, mooy affaire Sonko aji Sarr <laughs> affaire Sonko Adji Sarr nekk loo xamante ne nii yëngal na askanu euh, Sénégal bi yëpp euh, de vive manifestation enregistré nañ ko fii ci réewum Sénégal laata ñu ñuy dugg ci fond sujet bi yan leçon la ñuy tiire ci loolu. leçon yi ñu ciy tiire mooy dëkk soo ko yoree da nga koy jiite ci dëgg soo bëggee jalgati dëgg nit ñi rappelé la à l'ordre Et c'est ce qui s'est passé en fait euh, avec cette histoire que les gens appellent l'affaire Sonko Adissar. Mais moi, je l'appelle l'affaire Sonko Macky Sall parce que c'était vraiment une façon déguisée pour le président de vouloir éliminer notre leader Pastef suite à des événements ah yoo xam ne parce que loo gis rek dañ ko war a teg ci contexte am dafa xam am un mois plus tôt muy le président Ousmane Sonko et notre parti ñu décidé ni dañuy wër Sénégal pour dem apporter notre message euh, pour dem euh, convaincre sénégalais yi ci suñu projet politique donc euh, ramasser amasser en l'espace de 24 heures plus de 125 millions le même jour à trois heures du matin nous avons reçu une sommation parce que je sais que ñëpp xam nañ ni cette euh, lettre interpellative était destinée à Pastef qui commence à déranger pourquoi parce que nag seen ay sondage seen ay renseignements généraux wan na leen ni sénégalais yi wan nañ leen ginnaaw te ki nga xam ne tey moom lañ jox bopp c'est le parti Pastef parce que le projet de rupture bi muy proposé c'est un réel projet de changement pour le Sénégal te loolu ko donc loolu moo tax euh, ils ont trouvé un prétexte pensant que euh, ñu waxee waxu mërs suñu ubbee euh, ce ce chapitre là euh, ils ont enfin trouver un moyen pour réduire au silence le président Ousmane Sonko donc malheureusement pour eux ils se sont trompés parce que ku nekk xam na li fi li ni yëf yi tëddoo defe naa tey du ñu defaat genèse genèse problème boobu mais enseignement majeur bi ma ciy tiire mooy ku bëgg politique Sénégal bëgg fee toog na nga def lu nga xam ne sénégalais yi ñoo lay wóolu mais essayer di noot ay nit di utiliser la justice wala euh, la force des institutions pour pouvoir réduire au silence ses opposants li mu jur du neex kenn di euh, profiter nag ci occasion bi encore une fois on ne le dira pas assez di saw ñëpp ñi nga xam ni dañ ci ñàkk seen doom dañ ci ñàkk seen membre yoo xam ne si seen famille lañ ma leen yi masawu parce que nag kenn bëggeeku ko woon nii di masawu tamit ñëpp ñi nga xam ne dañ ci yàqule euh, que ce soit des entreprises euh, sénégalaises ou autres parce que nag kenn ñaanul yàlla lu mel nii euh, di am ci dëkk mais dafa fekk ni rek boo gisee population mu dem ba fippu c'est que dafa d'accordul ci yëf yi ni muy demee ndax defe naa bu fekkoon yëf yi dafa am lenn li nga xam ne rek ndiru na ci dëgg gëw ma ni ni ma leen xamee danañ jóg di wund si loo xam ne euh, amul solo wala amul foula wala amul fayda donc ils ont compris que euh, c'est une énième tentative pour un État euh, bi nga xam ne dafa perdre les pédales de vouloir encore liquider un adversaire politique et que aujourd'hui ils ont donné un signal fort à ce gouvernement le, parce que je pense quand même que la chaise a bougé je pense aussi que euh, le message a été euh, lancé et entendu, en tout cas je l'espère, euh, que le peuple est le seul souverain, qu'on gouverne par le peuple et pour le peuple, et que doo demee ba mën a bëgg a jéggi peuple boobu wala nga bëgg a jalgati yoon c'est ce peuple qui te rappelle à l'ordre loolu lañ ci jàng di wax rek ni c'est un signal fort aussi qu'on a envoyé à tous les dirigeants actuels et futurs je pense que le peuple sénégalais a montré que euh, quand il faut prendre ses responsabilités da koy jël ba mu mat man loolu laa jàng di wax nag ne c'est pas seulement un message à envoyer à l'actuel régime mais aussi à tous ceux qui voudront un jour diriger ce pays que le peuple sénégalais est un peuple mature et que c'est un peuple bu nga xam ne du ko décider et que c'est un peuple aujourd'hui qui est très instruit et très informé donc kenn mënatul permettre di def lu la neex te dara du la ci fekk ah, aussi très exigeant et ça c'est nit ñi war a jàng retenir ko comme message donc li fi daan am ngay def lu la neex di wax lu la neex muy jàll je pense que maintenant nit ñi war nañ xam ne le niveau de d'éveil euh, du peuple sénégalais est tellement fort que ñoom ñooy garantir la léegi ah seen ay liberté ak seen ay droit te kenn du ko jalgatee ti Khadija toujours ci wàllu manifestation yi on a vu aussi l'engagement des femmes. de Pastef su ma juumul 17 de di 17 Linguère nga bokk ci je pense euh, jotoon nañ leen teg loxo loolu tey jii nii qu'est-ce que ça vous fait l'engagement des femmes bien sûr ci langu politique bi parce que nag euh, mel na ni daal xaw na am na solo daal. politique a toujours été une réalité sauf que le mauvais rôle lañ doon jouer maanaam dañuy toog ñu leen di utiliser di leen instrumentaliser pour ñuy fal ay góor. loolu defe naa nous les Linguères de Pastef nous avons montré que nous ne sommes pas venus en politique pour jouer les seconds rôles et nous ne sommes pas venus aussi en politique pour pour être euh, derrière euh, tey euh, lii amoon ñu koy ñaawlu nag man de ma vie mosuma woon xalaat ni danaa caabi dina ma féete ginnaaw parce que lépp lu ngay def rek damay jéem a xool ci lu bari pour yenn yi bañ la arrivé mais ci politique ngeen nag ngay jàngee lu bari donc ci politique lañ ñu jaayee doole lañ ñu nootee lañ ñu opprimé yóbbu ñu garde à vue pendant six jours euh, di ñu baloté de gauche à droite des femmes yu nga xam ne dañu jógoon juste pour dem seeti ji seen leader quoi de plus normale nga am sa leader mu am problème euh, lu day ni li fi xewoon euh, nga dem massaw ko féddali ko sa kóllëre montré ko sa engagement mais dafay wane rek ni aujourd'hui en fait dañuy utiliser justice pour euh, bâillonner tout le monde. Et on n'a pas échappé à ça. Donc, ma koy déplorer encore une fois. Di aussi profiter ces occasions bi. Di wax rek ni il euh, encore des jeunes qui sont détenus euh, dans les prisons sénégalaises à cause de ces événements la Te dañ leen war a bàyyi ñu ñibbi seen kër ndax nag dañ fi woote apaisement te apaisement boobu pour ñu ñoŋal ko wala ñu gëm ni lu dëggu la ñi nga xam ne dañ leen jàpp injustement arbitrairement damay ñaan yàlla nañu doxal te bàyyi leen ñu ñibbi c'est les militants anonymes comme je les appelle parce que c'est vrai que récemment on a libéré des des des détenus dont le frère Biram Souleye Diop Abbas Guimari Sagna Assane et autres donc c'est des gens connus mais à côté de ça y a le militant inconnu y a les yi nga xam ne dañ leen a jàpp ñu doon naqarlu li leen dal ñu denc leen ci prison yi nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër loolu mooy indi jàmm ci Sénégal di naqarlu kenn ki nga xam ne particulièrement il est malade en ce moment muy Ndongo Diop bi nga xam ne ñu ngi ko détenir euh, prison euh, bu Diourbel mu feebar nekk si condition yu métti ñun am nañ ci ay information à travers lui tous les autres détenus nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër ndax nag euh, prison du du place gor te gëm naa ni di défendre sa dëkk di défendre say convictions comme ni la ko constitution mayee comme ni la ko droit permettre kenn waru cee jël nit di ko yóbbu d'autant plus que nag euh, li gën a graaw te man loolu moom ma métti mooy on a vu des ci élec si si si yooyu ñuy dóor nit ñi ñuy jaay doole nit ñi ñuy def naka sa noonu gisoo ci kenn wala nga dégg ci kenn koo xam ne yoon euh, teg na ko loxo mais pourtant les sénégalais yi nga xam ne tey dana jugoon di naqarlu lii am ci dëkk bi parce que nag problème bi du seulement le problème de euh, Ousmane Sonko et Adji Sarr mais c'est plus le problème de Sénégalais qui en avaient marre donc ñoo génn wane seen naqar wane seen seen seen désaveu par rapport à ce régime ñooñu la ñu jàpp nañ leen bàyyi ñu dem ñibbi prison du place gor message bi am na euh, solo ñu ñëw ak yow nag si suñu dernière question toujours dans la l'affaire Sonko Adji Sarr <laughs> mu mel ni l'affaire a évolué ah gis nañu sorti ki nga xamante ne moom mooy di la plaignante di Adji euh, Sarr mu nag def ay déballage ah ñenn ñi nag jàpp ne euh, yu am solo la mais ñu buggoon a xam déjà ndax mën nañoo situer responsabilité yi parce que gis nañ ne aji Sarr c'est une femme boo xamante ni xëy na euh, elle est jetée en pâture jamono ji ci histoire bi ñëpp jàpp ni elle est fautive mais euh, Khadija est-ce qu'il n'est pas temps aussi ñu xool situer euh, responsabilité yi parce que yaakaar naa ne affaire bi du affaire aji Sarr Euh, seulement, mais c'est l'affaire Sonko et Adissa. Ben, écoute, j'ai un petit problème par rapport à cette question. Et euh, donc, euh, mais je ne me permettrai pas de voir pour la simple et unique raison que c'est une affaire aujourd'hui qui est pendante en justice et que donc je crois que nous qui, qui, qui réclamons une nouvelle façon de faire de la politique, on doit commencer quand même euh, par dossier bu nekkee ci yoon ñu éviter di ci prononcer wu di ci am yenn position yi parce que c'est pas c'est pas correct donc euh, je je pense que c'est une affaire boo xam ne sur cette question malheureusement je vais m'abstenir mais am na lu ma ci mën a wax lu ndaw loo xam ne ça n'a rien à voir avec avec euh, le fond du dossier voilà c'est plus par rapport à l'instrumentalisation de la femme parce que loolu man côté boobu tey foofu mooma foofu laa bëgg a taxaw xam nga lu tax soo xoolee mbir mi ni mu demee jigéen lañu utiliser encore une fois pour détruire quelqu'un quelque que soit lu ci nit ñi mën a wax rek on a utilisé une victime cette fille est une victime d'un système euh, cette en fait est une victime de lu nga xam ni leer na ma ni tey bu démb doon tey du defee nii du démb doon tey lii fi am du demee nii li ko waral rek mooy euh, euh, dañuy fekk ku nga xam ne dafa pauvre en général wala mu nekk ci ay conditions économique difficile ñu ñu ñu def loola loo xam ne euh, appâté la par de l'argent wala quelque chose euh, promesse wala un passeport wala ñoom ñoo xam pour jouer loola un rôle te bu doon seen doom la wala mu doon seen ñooñ duñ ko def loolu moo ma may wax rek ni tey les femmes doivent dépasser aujourd'hui euh, euh, au vingt-et-unième siècle ce genre de position et ce genre de rôle euh, malheureusement aussi ñu utiliser le viol avec tous les combats yi nga xam ne man je suis une vraie féministe et j'ai participé à travers le réseau Siggil Jigéen à toutes ces luttes yi nga xam ne dañ koy def pour les droits des femmes dont le crima euh, criminalisation au viol donc tey suñu jëlee viol di ko def arme politique mais tous les hommes de ce pays sont en sursis parce que ku jóg bu la neexee nga ne ma violé ñu jël la taxañ la yóbbu la en sachant que tu risques ta vie parce que quand on parle d'un crime c'est des peines très très lourdes donc mal ñuy utiliser ce ce ce viol là le le le avec li muy impliqué yëpp pour di yàq ay nit utiliser contre la femme ça c' est très très grave dans ce pays man foofu lay taxaw di wax rek ni dama bëgg jigéen ñi xam ne euh, ñun ñooy société ñun euh, yàlla def na may nañu lu mu mayul kenn c' est nous qui portons la vie c' est nous qui éduquons nous sommes le premier rempart et le dernier rempart de cette société donc dama bëgg ñu xam ne suñu valeur dafa dépassé yenn yi donc euh, je demande à ce que cette fille ñu dimbali ko parce que elle est prisonnière aujourd'hui de sa vie te ñii nga xam ne dañ ko jël instrumentaliser ko euh, du doon seen doom la comme je l'ai dit duñ ko def te tey ji elle est une bombe entre leurs mains kenn xamul lañ lañ ko nar a def di leen wax rek ni bàyyi leen doomu jàmbur mu ñibbi këram yoon dina def liggéeyam en tout cas nous on l'espère parce que on l'appelle de nos nous on l'appelle mais de de la manière la plus forte parce que dañu bëgg laver à grande eau notre leader parce que on est sûr et certain et je sais que sénégalais yi seetaan yëpp xam nañ ni li waxu naka sa xandang la nañu bàyyi aji Sarr mu ñibbi këram yoon bu ko soxlaa dina ko woo le président Ousmane Sonko aussi et on lappel ce procès ñuy wax nag nañ ko def un procès ouvert nañ ko def un procès boo xam ne dañ koy teg à la télé bu fekkee dafa war a am ñëpp di seetaan di déglu kuñ ci laaj boo waxee sénégalais yi sont assez matures pour juger te man leer na ma ni cette fille malheureusement suñ ko exposée à un jury c'est ça, ça ou à des avocats mais elle va elle va elle va elle perdre les pédales parce que li muy wax malheureusement ça ne tient pas la route donc euh, en tout cas c'est une affaire très complexe c'est une affaire très compliquée mais li ma ciy wax rek mooy yal na am mujj bu mujj bu bu bu bu gaaw ah, parce que ñun ñu fi nekk di xaar ay encore ay deux ans trois ans mu euh, nekk benn épée de Damoclès sur la tête de notre leader ça on ne l'acceptera pas donc ni ñu defee fast track ci enquête bi nañ ko def fast track sur la suite pour que ñu mën a am euh, ku nekk xam foo féete te gëm naa ni justice dina def yoonam de toute façon personne ne, ne peut se permettre maintenant dans ce pays de faire ce que tu veux parce que les Sénégalais sont les vrais juges et ils regardent a bàyyee guma juste une euh, petite question rek par rapport a cas boobu wax nga ko sànq Adji Sarr jàpp ngeen elle est victime ndax dañu ko instrumentaliser mais tey jii euh, le président Ousmane Sonko jàppoon ne moom itam il est victime euh, de son immaturité politique vous me passerez le mot <laughs> je je l'espère loolu noonu tey ji euh, su ma la ci interpellé lan nga may tontu. non ce mot je ne peux pas le laisser passer parce que ça. C'est très grave parce que tu veux dire que 15% des Sénégalais ont voté pour quelqu'un qui a une immaturité. Je pense que Sénégalais yi lay déglu sax euh, kontaan nañu ci question bi donc moi aussi je ne suis pas je ne peux pas l'accepter il faut que tu le retires <laughs> donc euh, c'est ton avis je respecte ku ci nekk mën na am avis mais je pense aujourd'hui que euh, soo demee ci Sénégalais yi nekk à travers le monde yamuñu Sénégal Afrique euh, nga demandé leen quel est le vrai leader qui incarne le changement dans ce pays quel est le Sénégalais bi nga xam ne euh, le politicien le programme bi nga xam ne tey euh, mën nañ ci am yaakaar pour un vrai changement pour ce pays on te citera sans conteste sans commune mesure le président Ousmane Sonko loolu laisse-moi terminer gis nga tey il faut pas qu'on porte des jugements de valeur comme ça parce que tous les journalistes euh, wala les débats de rue waa lii laale tout le monde a le droit d'avoir son avis mais ñun jugé wuñu le président Ousmane Sonko sur ce qu'il fait de sa dans sa vie privée xam nga si lan lañu koy jugé li nga xam ne mooy suñu euh, contrat euh, par rapport au parti que bi ñu adhéré muy PASTEF lan lañ ci porté comme idéal lan lañ ci porté comme idéologie lan lañ ci porté comme projet de société et sur ce point Euh, je pense que les Sénégalais ont compris que le, la vraie rupture et le vrai changement est incarné par un homme. Et cet homme, on se doit de le protéger. Et nous, les patriotes, on ne laissera personne, je dis bien personne, euh, nous, nous, nous dévier de l'essentiel di ñu yóbbu ci ay euh, débat de bas étage parce que ce qui s'est passé ces derniers mois c'est vraiment des débats de bas étage nous nous avons l'ambition

toutes les actions que nous sommes en train de faire si li nga xam ne euh, moom moo ko lié avec les Sénégalais muy son projet politique et laissons de côté euh, ces histoires de considération euh, de vie privée parce que ku nekk am nga sa vie privée te nekk am nga ci sa àdduna loo xam ne xëy na bu ñu la ko génnelee du la neex ñi fi nekk ñoo la ko gën a xam donc relevons le niveau du débat en tout cas nous c'est vers ça qu'on les appelle parce que nous sommes prêts ñi ko bokk muy sénégalais ku nekk jot ci sa wàll ñun loolu mooy suñu combat loolu mooy suñu projet politique un vrai changement pour l'Afrique et le Sénégal euh, les Sénégalais et que euh, xar-xaru Sénégal ak Afrique changé et ce projet que nous euh, ambitionnons de réaliser pour le Sénégal notre leader c'est le président Ousmane Sonko qui pour nous a les valeurs intrinsèques d'un leader qui peut porter ce genre de projet foofu laa bëgg euh, mettre euh, enfin l'accent et un peu ñu ni ñuy relever niveau débat bi di leen ko ñaan parce que les Sénégalais nous attendent ailleurs ils ne nous attendent pas sur euh, ay affaires yoo xam ne vraiment jëmale wu kenn kanam les problèmes sont là ils sont urgents les problèmes sont là ils sont criants la jeunesse souffre les, le monde rural souffre euh, l'administration est décousue ñun euh, on aspire à diriger le pays autrement donc on on appelle les gens sur des sujets sérieux voilà man sur ce genre de questions je suis très très à l'aise pour répondre sur le reste je peux le faire mais je je je ne préfère pas voilà. <laughs> message est clair euh, madame euh, Khadija euh, Mayekor Diouf yaakaar naa ni euh, waxtaan wi am na solo euh, ñu ngi ci jeexintalu émission bi ñu bàyyi la rek nga joxe say kàddu mujj. bien en tout cas c'est un très très grand plaisir euh, de de de t'avoir reçu Marianne di la encourager parce que le métier là je sais que c'est pas facile mais di la wax rek ni jàpp te wa bàyyi comme je le dis partout c'est le siècle des femmes assumons. ce que Dieu nous a donné de plus important que les hommes, c'est la vie. Euh, nous, on a la capacité d'être euh, ministre des Finances parce que ñooy gérer kër yi ministre de, de la santé ñooy faj xale yi ba pare génn di yore suñu liggéey nekk ci société bi am ci ay engagements associatifs politiques et autres loolu jigéen rek moo ko mën donc lu la yàlla jox lu mel noonu da ko koy santé di ñaan yàlla rek Sénégal jàmm am fi ndax euh, Sénégal bu ñu ko bëggee construire il faut nécessairement que mu nekk dans un cadre paisible ne moo mës a caractériser Sénégal la teranga sénégalaise yal na fi sax euh, suñu mag ñu tedd ñi nga xam ne tey si combat bi dañ ci jàpp jouer ci seen rôle wane ni le Sénégal li koy différencier des autres pays li tax la ceinture qui nous entoure nekk une ceinture de feu ñun ñu am jàmm c'est parce que on a une stabilité bu nga xam ne suñu homme religieux yi dafa am rôle bu rëy bu nga xam ne ñoom ñoo ko ciy jouer di leen ñaanal yàlla ñu am wér euh, yàlla may leen fan bu gudd ba ñu mu ba ñu continuer di assister euh, ce pays Euh, j'appelle toutes les femmes euh, qui sont dans les communes dans partout et dans les communes les plus reculées dans le monde rural ñu dem briguer les mairies parce que je je souhaite et j'appelle de tout mon cœur euh, que mairie yi nga xam ne ñu ngi jëm ci élection wam qu'on ait plus de femmes mairesses, qu'on ait plus de jeunes engagés dans les conseils et communautés rurales parce que tout simplement ñun ñoo ëpp ci population bi te dafa jot suñu ay problème ñuy toog à la table de négociation pour mun di ko waxal suñu bopp di mun di def ay propositions tant que ce changement de paradigme amul tant qu'il n'y a pas une un renouvellement générationnel euh, bi nga xam ne euh, politiciens yi anciens yi euh, ñun yóbbu leen à la retraite ndànk ñu ñuy accompagner certes mais ñu xam ne ñun dañu aspirer aujourd'hui à prendre des postes que euh, très rapidement on appelle ce changement-là de tout notre cœur et on ira briguer toutes les mairies les législations aussi suñ ci tolloo et on portera le président Ousmane Sonko le projet de PASTEF euh, à la magistrature suprême en 2024 ça c'est mon vœu le plus cher jërëjëf Khadija le euh, di la jaajëfal bu baax ci sa disponibilité di leen jaajëfal itam mbokk internet yi euh, di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen